2 septembre 2018 yamok talata le docteur Abdoulaye Niane bu parti Teranga senegal ñewon fi ci Touba ngir ku ñi nga xamne ne dañu am ay jafé jafé ci nawet bi ñu nek ci bërepp yu nga xamne ne ni mën nañ see ragné fi nga xamne ne lañ wax Touba Mbusoobe daru marnan Touba ndamatu ak fi nga xamne moy Touba Darou khodos kon nuñ def lu lu kaddu yi nga xamne ñom la docteur Abdoulaye séti won am ay jafé jafé war na dem massawuka taxawu ca lam man àdduna moom noonu la baaxoo ñun moom lii moom du ñun du yéen yàlla moo ko dogal ndax kenn ku ci nekk da doon ñaan yàlla am ndox ndox na xéewal saa bu ñëwee rek mm-hmm. moom noonu rek lay ñëwee. dana ñëw baax ci ñii bënul sax ci ñun. bënul sax ci ñun ndax gannaaw mu ngi fekk ñoo ngi ñoo ngi di wax académie ka ñëw. kon bënu ci ñun. ndax loo mën di gis lu nekk rek. ndox mooy baasam. kon ndox ñun moom wax dëgg yàlla am duñ ko jàmbat. xañ na yàqu-yàqu yi sew sewaan yeeg yooyu mu ak kër yi am ndox yeeg. ak bagage yi ci yàqu. loolu rek mooy problème bi waaye bu dul loolu. amul ci len lu luñ ci naqaru ndax lu yàlla def ku ko naqaru ku ne dangaa jóg. ndax keroog sama xale yi dama leen a yóbbu sama kër yaay ndax su ma ko defutoon dañuy gaañu si ndox mi waa suñ ceeb yeeg suñ diwlin bi suñ këriñ yëpp suux si ndox mi keroog a ñu ndékki mun réeruñu xale yi dama leen a mujj rawale ku nu dimbale nag te yàlla tax moom lañ bëgg moo tax ñuy woote ndimbal kuy dim kuy def nag te yàlla tax moom da ngay def rek yàlla mooy fay moom ndax moom moo mën a fay waaye ñun chaque ane si lii nay dox danoo mujj tëdd fii ndax amuñu fun aw mhm. fun aw fun aw ndox la mhm. mayu yóbbu xale yi sama seen kër sama kër maam mhm. seen kër maam ñu tëdd fii si ndox mi chaque année nag loolu la nii daj buñ ko waxee buñ ko waxut xanaa kay tey mooy doo a feeñ wax ne chaque année nii lan nekkee rek ku ñu dimbali rek yàlla tax ñun nag moom boo nu jàppale bu soobee ñun Touba ñun waa Touba mu soobee bu soobee sëñ Fall fu suñuy kilifa aw rek fa la aw te gëm naa ne boo nu jàppalee dinañu ñi dina la jàppale ba nga xam ne jàppale la ci barke sëñ Fall ba Touba fu ma am mbokk ñu ñëw nga dugg ci biir bâtiment bi ñii ne ci biir bâtiment bi di tànq di sotti ci ëtt bi ñii ne ci ëtt bi di tànq di sotti ci mbedd mi te loolu bi ñu ko mënee def mooy bi mu fanaanee bañ xalaat ndox mu reposé na bii mooy suñ ñett yoon danoo génn bii mooy suñu ñetti yoon mhm. danoo génn benn yoon bi ñu dem nañ Dakar suñu kër foofu ba am fa ñett ba am fa an ñaari at door defaraat déet ci karawaat léegi xale ne kare bu fi fanaanaatee ba ëllëg day yàqu moo tax ñu obligé woote nit ñi dugg ci biir di tànk ñi dugg ci biir demal ba dugg nga xool ko mhm. nga tekki sa bët te xool ñuy defaraate boobu ba léegi mhm. boobu ba léegi lu ñu am rek ci lañ ko def ah, wóor na yàlla jëmi seen Tuuba di ñaan nag dimbal carte bi lépp nag ñëpp fi mu ne kër gi nii ko ko gisee nii bi mu tawee ba sewat pied bee gisoo ko keroog bi mu siwatee alxames ci suba PEB bi nga génnee tegoo ko bët xool ko ne ndox mi wàcc na PEB tegoo ko bët kër gale noonu génne ah ah Ablaye xanaa sant yàlla yonente bi sëñ Touba rek te xam ne dëkk bi dëkkab sëñ Touba la ñun bëgg nu fee jóg ndax fi lañ juddoo fi lañ yaroo ak ñeneen ñi nga xamante ne dañ fee ñëw kon dañoo bëgg lu fi yokk rek ñu defar dëkk bi lii defar dëkk bi nag fii moom lii moom li ko mën a defar rek mooy canalisation mu mën a jàll waaye canalisation amu fi bul defe dana jàll te ñi fi nekk itam tax nañ tabax ba noppi xam nga ne defar luñ ne nii ba noppi wëlbati kubaat di defarewaat feneen yombut bañ ko fi def yombut te léegi la gën a jafe wax dëgg yàlla te nga jaboot nga ba pare kër gii borom dafa nekk Louga dëkku fi moonu ko abal nii ñu dugg fi wër na yàlla borom Louga la dëkk bi ñu ko waxee lañ ko woo téléphone mu woo gardien bi na ko jox leen caabi ji mu jox ñu ñu dëkk dugg fi wax dëgg yàlla ndimbal la bu fi amul woon at mam fi amul woon ba ko defee kër bàyyi laat gëla lañ demoon bi ci def Dakar lañ dem yàlla leen ci yàlla jot da ngeen defaral ñu suñu dëkk ngir yàlla jëmi sëñ Touba sëñ defal ñu ñun ñëpp ndax mu ñun daal fii lañ am fii lañ bëgg yàlla na fi yàlla bàyyi defal ñu xéewal li ngeen di yóotu yàlla ngeen ko jot ci barke sëñ Touba fii den àjjuma sama ah, sama mbokk ak xarit boo am nit ko am nii lañ def ñii ne ci biti di tànk di sànni ñii dugg ci biir di tànk di sànni fii ñii di génne moo fi génnee ndox ba kon bu ngeen ñëwee da ngeen di xus kon fii lay nii lay mel te boobu sauvé kara yi moo tax nit ñi ne nañ ko def noonu ñun dañoo sonn ku ñu dimbali rek lañ bëgg suñu xar yi dee nañ suñu dundu yakuna na suñuy lañ jaay jënd motor be barki demb demb lañ ko jënd tay ji ci suba dañu muju dem sa sapor yo ya wolé ñu won ñu niñ koy défaré suñu bagage yépp suñu alcorane yi nga xamné ne amuñu luddul mom yakuna fi kenn dimbaliñu fi ci lenn dimbali wuñu dañu jaay suñu takkaay sonn nañ torop suñu xar dé suñu dundu yakku suñu alcorane doom yi yakku lépp yakku li ba mu amé dama leen né lu melni bu amee dogalab suñu borom la dëgg la jaar noko doon ñaan. waaye bu amee comme danoo dëkk ci dëkk bi yor ay autorités yu nekk ci dëkk bi nga xam ne lu yëngu ànd ci ak ñoom bu dara xewee man maa sol sama dàll dem ca bureau chef de village def fa déclaration ne leen nag comme yéen dañ ne dëkk bi moo leen fi tax a toog te tey bu ngeen fi toogee waa dëkk bi ñoo doomi dëkk bi ñoo leen fal ba ngeen mën faa toog. bu dara xewee la gën a rafet war ngeen a ñëw xool ni mekku ñooñu nga xam ne ci seen njaboot lañ bokk situation ba fa nekk nga ànd ko ak ñoom ñu ne ma loolu nga wax mënuñu ci dara duggal ci oto bi ma ne leen du ma dugg ci oto bi dama doxoon xuus ci ndox mi ñëw yoruma dàll sax dama ko bañ ba dama sumi sama dàll dama duggaat ko ci ndox mi xuusaat ko delluwaat fa ma jóge wa ndax man dama def étranger dama génn dama dox fu ne dama xool réew yi nañuy doxe ak Sénégal ni muy doxe dafa demul buñ gisee nag nga xam ne ci dëkk gis nga dëkk bi bu ñu waxantee li fi dëkk li fi nekk doomi dëkk bi doom nga ko mën a defar mais du keneen kon yow boo jógee man yàgg na maa dégg sa tur ngay doomi dëkk bi ñëw sol saw dal ànd ak say gaay ñëw nemmeeku suñu loolu dañu koy rafet rafet lu lool te xam ne sas nga nu lépp loo mën di nekk danañ ci ànd ak yow ndax nit kët bu bëtam xongee te ñëw ci moom ma masawu ko kooka mooy mbokk mooy mbokk man samay wax dadul neex ndax dama génn dama gis ni réew yi di doxe gis ni Sénégal di doxe bokkul tubaab yi bu dara amee bala nga toog cinq minutes danañu ñëw def intervention mm-hmm. Espagne di ma naw cinq boo wootee danañu def intervention mhm. fii dara day xew nga woote toog ba bis ba dellu si ca suba sa doo gis kenn te bu ñu soxlaay fatt la fatt la lu ne ñu di la ko peegee ka naxe mhm. comme nag yow ci dëkk bi nga dëkk di doomi dëkk bi mhm. yow dana ànd ak yow nga defar ñu defar sunu dëkk nun noo ko mën a defar noo ko mën a téye ci sunu bopp defaral ko sunu bopp te buñ ci séntu keneen lii nga def nun rafetlu nan ko lool moom sant nañ la gërëm nañ la te ñaan fa nga jëm yal na la fa sunu borom eggal yàlla na nu dem ba président de la république dëkk Touba Mbacké gi rafetlu nañ ko lool yéen nag ku ànd kii da ngay tëx gumbalu ndax nit ñi ñuy dem rek lañ bañ a gis booy dem galgal bu ne danañ la ko dóor xeer wu ne danañ la ko sànn waaye tëxal gumbalu bu leen déglu leen topp leen ci moom laxasu fu leen ne foofa la foofa bu nit ñëw mën leen a koromp xob leen dig leen ndax tey da nga fi gis ku nekk ci nit nekk mu jox la lépp benn waaye jóge ci àll ba korom pour dig la ba nga xëy wacc kooka te lam la wax doo ci gis dara du ci am loolu moytu leen jàppale ko doomi dëkk la nun ku nu jàppale rek ñu jàppale El Bachir li ma gis doy na kéemaan euh, dama gis euh, ay population maanaam ay nit yu ñu bàyyi bàyyi leen ak euh, seen naqar bàyyi leen ak euh, seen néew ju doole euh, te loolu du ren ay at yu bari la gis naa tiis gis naa ay pères de famille yoo xamante ne nii dañu génn seeni kër ñenn ñi dañoo génn sax dëkk bi te Touba di dëkku yërmande di dëkku Serigne Touba di dëkk boo xam ne boo fi ñëwee ak yéene bi nga fiy ñëwee ak li nga fi war a fekk euh, du lii te nag loolu jàpp naa ne autorité yi ak état bi ci boppam. ñoom ñoo bàyyi population bi noonu parce que lii dafa laaj ay investissement yu bari yoo xam ne dafa manqué biir Touba euh, at mu jot bu nawet bi jotee lii dañ koy gis euh, loolu nag du taf yëngal moo koy régler il faut ñu dem ci ak yéene il faut ñu dem ci ak xam-xam il faut ñu dem ci ak aussi euh, delloo njukkal borom dëkk bi sëñ Touba ndax dëkk bi dëkku sécurité la dëkk boo xamante ne nii ku fi dugg da ngay rëcc loolu la war a doon wante dugg fi di génnaat dem nañ foo xamante ni nee nañ ñu. dañoo bàyyi seen i kër demaat Kaolack am nañ ñu ñu bàyyi seen i kër demaat yeneen gox ci senegal te léeg-léeg dañ fay toog ay weer wala ñu toog fa sax at wala dara ngir jaaxle loolu nag métti na trop am na ay pères de famille yoo xamante ne nii ay néew ji doole lañ bu ndox mi nangoo seen kër danañ toog ay fan duñ mën a liggéey donc duñ mën a dundal seen waa kër loolu di metti donc tey jii daal vraiment situation catastrophe lañ nekk fii ci Touba te loolu wax dëgg yàlla taw bi. bare bareegul noonu day dafa commencé taw rek suuf si màndi na ça signifie que bu tawaatee lu bari dina gën a metti loolu nag te te kenn waxu ci dara actuellement dafa mel ni lii xewul euh, ñun donc boo gisee ñu jóg tey lii lañ bëggoon a won waa Sénégal won ne aussi ñun teraanga Sénégal lii mooy politique pour ñun maanaam ñëw ci askan wi xam li ñuy dund ànd ak ñoom ci seen mettit jëm ci ñoom dara wax ak ñoom rek dèjà masawu leen foog naa dara la ci ñoom leneen luñ ci mën nag ñu jëm ko loolu moo taxoon daal vraiment ñu def la tournée wax dëgg yàlla gën gënuñu woon coono yi askan wi dund. gën gënuñu ñaax itam ci ni nga xamante ni moom lañ bëgg a def maanaam fexe ànd ak ñoom ba seen tiis ñu ñu ñu ñu wàññi ko wala ñu dindi ko. xëy na doole ji ma tey ko parce que yaa ngi ci kujje gi. mais ci wàllu xalaat lan nga jàppale bu ko defee tey. ginnaaw at mu ne lii xew bu ñu mën a def loo xam ne dañuy saafara li définitive bi. waaw xam nga fii dafa laaj ay investissement yu solide assainissement à Touba c'est nul amu fi ndox déjà richesse la Touba dafa nekk ci zone boo xam zone de sécheresse la mooy zone Bawol bi jàpp naa ne ndox mi. non seulement dañu war a fexe ba du lor doomu aadama yi wante dañu war a fexe ba doomu aadama yi di utiliser pour seen développement mën nañ ko jël canaliser ko def autour de Touba des zones euh, dañ fi dañ fi dañ fi dañ euh, agriculture euh, mais loolu dafa laajee investissement bo ci dëkk yu melni Israël désert mais ndox bu touti biñu am ci année bi mom lañu jël ba agriculture ëpp ci monde presque mais pourquoi pas ñun ñu def ko mais yaafuus ak ñak yërem nit ñi rek motax Sénégal dara metti donc pour me résumer il faut un programme d'assainissement à Touba programme bobo, il milliards la war a doon du taf yëngal wala jël deux milliards 3 milliards non dañu war a évaluer besoin dëkk bi ñu def programme bobo. Deuxième itam il faut que nous mi utiliser pour des plans d'irrigation euh, agricole autour de la ville de Touba loolu daal wax dëgg il faut ñu def ko bu ñu ko malheureusement nous ñi dañuy sonn rek di gën a sonn te loolu wax dëgg ñan ñu war a jiitu ci loolu mais état bi la responsabilité état la euh, mairie mën na liggéey war na ci def dara parce que ñoom itam ñoo war a alerter état bi ñoo war a def peut-être même les études de besoin d'évaluation wax ah hein, wan état bi ne lii bu ngeen ko deful jàpp nañ ne defu dara ci dëkk bi mais lii responsabilité étatique la il faut que gouvernement bi état bi xam ne Touba ci Sénégal la bokk ñu bañ koo bàyyeeg sëriñ bi bañ ko bàyyeeg taalibe yi xam ne ay citoyens ñoo dëkk ci biir dëkk bi ñu def.

heure nawet bu mel nii ñu ñëw fi indi fi ay expert ñu xool lan la dëkk bi soxla ñu wax ak nit ñi de façon claire mu am transparence ñu jël ko def ko ci dëkk bi te teg ko ci loxo yu set yoo xamante ne nii bu buñ koy liggéey xaalis boobu ci biir dëkk bi lay nekk bañ a jël ay entrepreneur fële rek ñuy dégg ay commission ak ay lii ay lële comme léeg-léeg ni muy amee mais nañ jëf investissement bi mu dugg ci biir dëkk bi ñu jàppale sëriñ bi ci li muy def ci dëkk bi. bu yàggul waa Daaru Marnaan ñu ngi manifesté wu pour wàllu ndox mi nga xam yi tey ñu gis leen yéen ngeen nekk ci terrain bi di dem kàcc bu nekk fi goy yi xam ne fi lañ am ndox mi yéen bon tey boo jot a réew mi nan ngeen na ma defal waa askan bi waaw mais xam nga li ñuy def nii mooy wane ne ñun gouvernance bi ñu bëgg a instaurer Sénégal mooy gouvernance boo xam ne da ngay jege population yi Euh, wax naa sànq ci benn quartier ne parce que wër nañ quartier yu bari wax naa sànq ci benn quartier ne ñi fi ñëw naan na ngeen leen pare nekk na ngeen leen def léegi na ngeen leen def lale wala ñuy jël ay xaalis di leen sànni wala ñuy yore 4 x di def ay convoi di dem ñooñu bu leen taw bi di nangu seeni i kër à minuit ña nga ca hôtel ya toog donc nañ xalaat bu baax li ñuy def xalaat ñi ñu àndal ci politique ñi dëkk ci dëkk bi ne dañoo bëgg a régler problème mu dëkk bi ñooñu ñoo yore solution mbir mi donc ñun suñu xalaat mooy loolu c'est-à-dire jege population bi évaluer bañ a naxanteeg ñoom lépp loo xamante ni mën nañ ko indi comme solution muy des des solutions intelligentes maanaam solution yu xarañ pas ne def naa fii ay milliards non c'est pas la solution non seulement ndox mi dañ ko war a jël mu bañ a nekk euh, des ennemis de la population mu bañ a de population bi mais dañ ko war a utiliser pour mu nekk bénéfice population bi en termes d'agriculture et autres ñaar yooyu dafa war a ànd parce que boo réglé problème mu ndox mi te nit ñi liggéeyuñu té ndox mi nek solution pour liguey lolu affaire cuune la donc pour man il faut solution bo xamné ci xol lay jóge ak ci xel ñu indi ko ci population bi lolu moy suñu solution pour le Sénégal. ah ya ngi wax parrainage légui légui euh parrainage bobu fan la ci sur le Sénégal tollu wala mbaa da ngeen a bokk ci course bi. non xam nga ñun actuellement bokku ñu ci ñi dem di rang ministère de l'intérieur né dañoo wara a bokk ci parrainage pour bokk ci parrainage euh am nañ une centaine de personnes wax nañ leen ne élection législative yi passé ñoo nekkoon e sur 47 listes donc tey jàpp naa ne bu 15 listes retiré parrainage ñoo waroon nekk 16 ba donc ñun mënoon nañoo mënoon nañoo dem te kenn du ne lu tax dem bu fekkee 100 dem nañ mais nag pour ñun loolu du solution Sénégal solution Sénégal tey mooy force yi maanaam nit ñi dajaloo nekk ay dynamique yu am programme bu wér bañ a naxanteeg nit ñi loolu moo ñu tax a jóg moo tax demuñu retiré suñu liste pour parrainer mais ñoo ngi ci discuter avec les candidats yo, sont yu crédible programme lañ développer pour le Sénégal xamna né fi fan yu dinañ wax ñi amal solution parce que ñun aussi démarche démarche qualité la. duñu ñëw rek lañ non non non parce que ñun dañu am suñu doole mais programme bi pour Sénégal nañ ñun mënuñu ko il faut ñu groupe bu mag. ñaari nit nit nit defuñu ko ñun ci coalition peu importe kan moo koy diriger ëllëg li am solo mooy na programme bi jiitu ci la ñuy liggéey te jàpp naa ne dinañ ci am ndam ci fan yu néew.